njëkk dialogue bi sax paix d'abord jàmm lu mu lal taayu loola du mën a sotti ñu profité muy occasion ñu waxaale ci jëme ko ci suñu bopp ak mbooleem doomu réew mi il est temps Sénégal koo wax mu ne la réewu teraanga la dëgg la loolu ci symbole yi la bokk lu baax la lu yàlla gërëm la mais nag boole ci foog ak fogaru dafa baax ndax jamono dafa am ñu nekk ci biir jamono am nuñ ciy doxe léegi sànq rek maa ngi wax ak sa ñoom Cheikh ma ni ko il est temps tey jamono bi même a imma imaam yi nga xamante ni ñu ngi ci jumaa yi ñu ngi ci jàkka yi seeni waxtaan seeni xutba yépp dañu waroon di ko sacrifier di sacrifier wu di waxtaan ak askan wi ci li nga xamante ni moo yëngal jamono bi fi mu nekk muy te wàllu terrorisme te l'islam lañ ciy tudd ndax ñi ko askanale ñu di ko def ci lu leer dañu ne ay jullit lañu te baatu lislaam woote ku ko dégg rek xam ni wootewul loolu ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko ni laa ikraha fi yonent bi masul am sañ-sañu fekk nit ne ko tey nga gëm wala par force wala ma dagg sabaat déedéet guerre yi mu mas a guerre yépp ay dëkkandoom ñoo ko daan tooñ jalgati mu am droit fay jóg attaqué leen mais li xew léegi nga xamante ni fa tabaarakallaahu même pays yi nga xamante ni réew yu mag lañu ñu ngi jonkan jaaxle ak moyen yi ñu am yépp ci wàllu sécurité wàllu moyen wàllu defence mais teewul gars yi di fa dóor mais astimaak suñu réew yi waaw te bari na tey suñu nattu ngoom yoo xamante ni bu ñu sañoon gars yi dal ci Sénégal ndax ñu delluwaat gannaaw parce que ñoom am na lu dal seen kaw ba pare au lieu ñu àndandoo war a seeve ñi nga xamante ni daluñ seen kaw mais déedéet liñ naan bukki bu lakkataat day bëgg moroom su ko defee nag loolu état mënul lépp dafa am lu mu man li ci des askan wi peuple bi ñoo mën a jàppalante seen biir wëlbati ko mën a jàppale état bi ci wàllu surveillance bàyyi xel ñiy dugg si bàyyi xel ñiy génn ñi ñuy daloo ñi ñuy dëkkal ndax gaa ñi ay feem lañu ñu amee stratégie bu nekk dinañ ko jël waaw soo amul sax xel ak xalaat ba ñu dugg la dëgg di dem yow ba ni man li ma nekk di ko pratiquer du dëgg ñi ñoo nekk ci dëgg mais buñ la xasee ba bu ñu xasee ba am na utiliser la jeex na da ngay seet fu mel ne nord wala nga dem fu mel ne Nigéria Cameroun ay Boko Haram ah mbooloo yu mel noonu yëpp ni bare nga xamante ni mi ngi jóge ci diggante Irak Syrie ak surtout Libye bi mu tojee kuréel bu nekk bel kuréelu boppam gàddu ay ngànnaayam waaw lislaam ndax santaane na tey nga ni yow ci lislaam nga tënku dugg ci dëkk jàpp jigéen ñi violé leen jàpp ndaw ñi rey dàpp jàpp mag ñi rey dugg ci magasin yi sotti keesu jàmbur yi jël marchandise si dem naan allahu akbar takbir àndul wala laa ilaha illa allah àndul te gis nañu koy def ñoo gën a ragal dee waaw man dama naan franchement du ñu ay jullit du ñu sax nit ñu nite ay bëgguma aw ci baat bi ñu ngi noonu daal dañoo mel noonu daal loolu nag niñ leen war a préparer woo leen mooy ñu booloo suñu biir ànd ak vigilance bàyyi xel bu baax loo gis loo xamul loo dégg lu la doyul xamuloo ko miinuloo ko ci dëkk bi miinuloo ko ci barab bi miinuloo ko ci penc bi walla ëtt bi mais autorité yaa ngi fi jëlal sa téléphone baa nga sol sa daal def ay jéego dem xamal leen ko ñun kat suñu dëkk bi walla barab sàngam gis nañ fa lu ñu xamul loolu buñ ko defee ndax euh, li olof di wax Euh, ndimbal na ca fekk loxol borom su ko defee loolu tamit incha allahu taala bokk na ci thème bi ñu war a lancer ren euh, te parce que lu jaadu la ndaxte daal sécurité bu amul at na maanaam nuñ koy waxee ci français sax stabilité du mën a am jàmm bu amul stabilité du mën a am stabilité bu amul koom-koom du mën a am wala bu amee tamit duñ ci jariñu duñ ci jariñu tojante bopp rek moo fi am te loolu nag du jàmmi réew mi du jàmmu àdduna du jàmmu askan wi nga xamante ni fa tabaarakallaahu ñoo ko dëkkee kon ñu ngi ñaan ñu ngi delluwaat di woo mbooleem doomu aadama yi yëpp wutuñu ci xàjj ak seen ki am diine ki amul diine ki nga bokkal diine ki nga bokkalul diine ndax ñu ñëpp nous sommes des sénégalais sénégalais bu mu ci ti doon Sénégal mooy sa sang waaw ndax njëkk diine di ñëw ak bokk moo ñu njëkk a boole diine ñëwul xàjjale dafa ñëw jàngal ñu nu ñu war a boole rawatina tariqa yi tariqa yi dafa ñëw pour ñagal ñu suñu diine waaw ñu ngi profité au passage di nuyu Cheikh Sidil Muxtaar Mbàkke xalif général des mourides muy suñu kilifa di suñu soppe di ku baax ko yàlla baaxal première declaration bi mu toogee ci xilaafa maam Serigne Touba radiallahu anhu li mu njëkk a wax moo di woote bennoo ne jot na sëkk ñu bàyyi kii murid la kii tijaan la kii xaadir la kii amul tariqa kii gëmul tariqa yooyu amul solo temps bu ñu amee occasion toog ak moom dañ koy fàttaliwaat loolu di ko wax ne dañ ci bëgg dañ ciy jàngaat te kilifa yëpp wëlbatiku nañu léegi li nga xamante ni bokk na ci seen mission wala mooy seen sensu mission mooy àndandoo nekk maanaam nekk benn pie ba nga xamante ni lu ñu war a jan lool dinañu janloog loolu ci mbaaxu yàlla loo xamante ni tamit dafa bëgg a ñëw suñu kaw bu fekkee ñu nekk benn ci mbaaxu yàlla ak ndimbalam loola du mën a agsi fa tabaarakallaahu su ko defee kon ñu ngi woo jaami yàlla yépp muy le 29 avril ak le 30 incha allahu taala le 29 programme bi mooy gannaaw julli juma bu ñu jullee tàkkusaan ba def ba pare dinañu def xadratul jumaa fii ci jagsaaw buñ ko defee ba ju ba pare ci julli timis kilifa yi ku fi ne ci walla ci njaboot gi dina am thème bu ñu jël waxtaan ci noppalu bala laan demee samedi dinañu wàcce kaamilu alquran luñ ci mën a jàng ñu ngi profito di sant suñu mbokk waa daara yi ndax bépp wëllëre bu ñu am xam ko ci réew mi fa tabaarakallaahu te ñu yëngu ci wàllu daara ñu ngi ñuy dimbali di ñu wàcceel ay kaamil li mun fi mu nekk nii di defi ñaan pour askan wi pour réew mi pour sous région bi pour àdduna yëpp ñooñu tamit ñu ngi leen di gërëm di leen sant waaye di gën a soññaat suñu bopp di leen soññaat ne samedi ba tamit bu ñu xëyee ci loolu la ñuy xëy bu ñu paree ci jàngum alquran mi leen jël ci turu yàlla yi lu takku ci ay lim bokk jàngandoo ko teewlu ci màggaayu yàlla sant ci yàlla bàkk ko ci kañ ko ci ñaan yàlla mu defal ñu ko muy suñu cadeau ci roox Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye ci yool bi ñu dellu ñaanal réew mi ñaanal ñi ko dëkkee jàmm ak xéewal ñaanal sous région bi ñaanal àdduna fu safara di tàkkee tamit mu fay ñaanal kilifa diine yi ba yaakaar bi jaami yàlla yi am ci ñoom yaakaar yooyu yëpp yàlla bu ko yàlla tas kilifa yi tënku ci njub ci siraatal mustaqim ñun ñi leen yaakaar tamit roy leen ci tënku googu ndax kenn nekku fi lenn nekku fi yàlla fi ne te ku nekk ci ñun di nga rendre compte ëllëg yàlla wax na ko ci alquran yow ma nad'u kulla unasin bi imaamihim léeg-léeg nga gis ku la ni ah kon boog imaam yi war nañu préparer déedéet muy papa ji muy yaay muy ba ci doom ji muy commerçant bi muy baykat bi muy ouvrier bi muy chauffeur bi muy transporteur bi muy apprenti bi muy coxeur bi ku nekk rek waaw ëllëg di nga rendre sa kanamu borom waaw te yàlla nee na ku nekk ci yéen sàmm la sàmm bu gi nga xam ne at mu jot dañ ko fiy def ci ndigalu kilifa yi bokk ko ak njaboot gi ak dëkkandoo yi di ko taxawee ci saa su ne mu mel ne kon jaadu na bu waxtu wi walla bés bi jegesee ñu yëkkatee ci kàddu ci ndigalu kilifa yi yëgalaat ko mbokki réew mi yépp ñi ko dëkke te ne fi ak ñi ko dëkke te yàlla dogal ñu nekk bitim réew waaye rawatina su région bi muy Afrique euh, muy njaboot ga nekk Europe njaboot ga nekk Amérique njaboot ga nekk Asie li waral loolu yëpp xam ni bés bi ñoo ko bokk ndax kiñ ko jagleel mooy sangu lépp lu yàlla bind muy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallim kon jaadu na itam ñiy dégg jagsaaw te xamuñu lu waral jagsaaw ak nu mu sosoo fedd li lay doon waaye muy wareef ci saa su ne ci bés bu ne ci waxtu wu ne woo xamante ni jagsaaw dara war na fi xew ñu fedd liwaat fàttaliwaat taarixu jagsaaw am luñ ci fàttaliwaat muy barab boo xamante ni wax nañu ne Cheikh Al Hadj Malick si radiyallahu anhu bi mu arfaanee dem beytillaahi alxaram ñaanoon na fa ñetti yëf lii ñu ko dégge ci làmmiñu doomam suñu way jur di suñu sëriñ alxaaji abdul aziz yàgg na di ko nettali góor gi daan na wax ni soob na yàlla ci mbaaxam moom yàlla ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñett yooyu fa maam cheikh alxaaji malik ñaanoon ak yam ca toftaloon yépp yàlla ci mbaaxam nangul na ko ko bokkoon na ci ñett yooya yow sama borom maa ngi lay ñaan nga nangul ma lii ma fi def si muy sama xaj gannaaw boo ma ko nangulee tamit bu yàlla dogalee ma dellu ba àgg ak jàmm yàlla nag ma yombalal jàpp ndalal ma barab boo xam ni dinaa fa mën a nekk di fa tuur sama ñaq di ko dunde ak sama njaboot ak ku ma ko bokkal waaye barab boo xamante ni tamit dina nekk barabu xamle ak xamlu barab boo xamante ni tamit dinaa fa mën a jaamu sama boroom ak ku ma ko bokkal kon barab boobu tey mooy Jaksaaw bari na fu Seex Al Xaaji jaar njëkk muy ñëw Jaksaaw barab yépp di barabu yàlla di barabu barke comme ni ko barab yëpp nekkee waaye nag jagsaaw nag fa tabaarakallaahu wëlbatiku na di ndayu barab yooyu yëpp Cheikh Al Hadj jaar maa ngi dégg rek ci suñu kilifa suñu sëriñ Mawlaaya Cheikh Abdoul Aziz Sy Al mi nga xamante ni mooy porte parole xalifa bi ak kër gi ak xadara bi yëpp ak lépp lu baax ci appel bi bi nga xamante ni mi ngi koy lancé wax na jëme ci mbokk yi ak dëkkandoo yi ne leen jagsaaw de ci liggéeyu Cheikh Al Hadj Malick soixante quinze pour cent wala quatre vingt cinq pour cent ci li mu préparé ci ay doomu aadama li mu defar ci ay nit li mu samp tamit ci ay barab teg fa fa tabarakallahu ndawam muy xam lu di xamle génération boobu yëpp jagsaaw gi la leen Cheikh Al Hadj Malick bi yàlla dogalee mu dellu si jóge baytullahi al xaram di gëstu di nemmiku yenn barab ba ñu xamal ko barab bi mu yónnee fi ndaw am na góor gu fi nekkoon ñu di ko wax maam Mbuutu fa tey fa tabaarakallahu di taalibe maam Cheikhul Xadim radiyallahu anhu ñuy muy góor gu baax ak njaboot gu baax gum fi dëkkaloon ba mu déggee yóbbante maam Cheikh Alxaaji Malik dalal ña yónni woon wax leen ni bu ngeen demee ngeen nuyul ma Maodo ne ko ku mel ne moom rek laa doon xaar yàkkamti naa ko gis waxtu wu ko soobee na agsi ba yàlla dogalee Cheikh Al agsi fi góor gi teeru ko teral ko dalal ko mu fanaan ba ca ëllëg sa ñu jóg ñoom ñaar doxantu ba génn ci wanag wi mu ne ko daal si li ngay dox si daal sotti na kon boog fii sa wewu tànk tàmbalee ba fu sa bët yem ndey joor ak càmmooñ kanam ak gannaaw lu la ci neex jëlal Cheikh Al Hadj Malick ba yàgg ne ko jëf tey maa ngi lay sant di la gërëm kontaan na waaye dafa mel ne fii ñu jublu lu ñu gor la ba pare mu ne ko ah jëlal lew na la doomu kenn nekku fi kenn dalu fi li ñu gorul nag moo ëpp waaye dafa nekk àll bu lëndëm boo xamante ni daal kenn ñemewu ko teg tànk maam Cheikh Al Hadj ne ko loolu laa doon wër moom a gënal ndax ma man ko goral sama bopp ak i sama bopp ak i sama bokk ndax ñu mën ci am tuyaaba yàlla gor ba mi ngi dëppook 1904 mu tolloog ganek àdduna Baye Cheikh Al Hadj Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu kon muy taarix boo xamante ni lu historique la fa tabarakallahu ñëpp di ko fàttaliku te duñ ko fàtte mukk mag ñi tënke woon ko jaju ba jaju ba mooy jàng jaamu yàlla ak bay te mooy liggéey ndax nag ak lu mën a xew lépp lu ñu laltaayewul njàng loola du mën a am du mën dem fenn ba ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam aaya bi njëkk wàcc ci moom ci alquranul karim sayiduna jibril indi ko mu jóge ci boroomam iqra la bismi rabbik yàlla neewu neewul jibril demal ni muhammad na ma sujjootal na ma sàbbaal na zikkar sama tur na ma bàkk na ma kañ déedéet na ma jaamu déedéet iqra bismi rabbik jàngal xamlul loolu maanaam leçon bu yàlla di joxe la waaye yàlla ku mu préparer ngay gën ji mbindeef njàng ak lépp peek nga ko ba pare fa tabarakallahu ba ci am na xadisul kursi bu yàlla di waxe sallallahu alayhi wa ne ko waxal jaam ñi nañu ma waaw daan na wax ni bu dul woon ak daw responsabilité ci bokk ak jaam yi moroomi jaamam yi seeni itte ak seeni bëgg-bëgg kon ku ko soxla jagsaaw nga koy fekk waaye nag nit du ëpp nit ni nit ñi di jóge di la fekk si noonu yow itam nga jóg nga war a jóg di leen fekki ci seeni bëgg-bëgg jàppale leen ci te yàlla tax ak di leen nemmi ko ci saa su ne fa tabaarakallaahu kon jagsaaw loolu ci taarixam la bokk muy titre foncier bu Cheikh xaaji Malick Tiwaawan Alhaaji Malick radiyallahu anhu moom Alhaaji Malick kër la fa amoon ak daara di fa jàng di fa jàngale ba yàlla dogal lii mu dogal tey waaye bu ñu mënee laajte tey titre foncier bu Alaaji Malick moom jag saaw gi la lépp nekk ci ay këyit yu legal fa tabaarakallahu góor gi daawul jóg chaque année dina renouveler piqueté waat tool bi lépp loo xamante ni rek xalaat na ci xalaat na ni dina tax dëkkin fii xaw a jàppandi yomb fàggu na ko muy ndox mi forage bi muy yoon bi muy courant bi waaye yàlla def na keroog bi forage bi bënnee daf ni maa ngi ñaan waa kër gi bu ci kenn mos benn góoxu ndox ndere lu dul suñu mbokk yi nga xamante ni ñoo ñu wër ak jagsaaw gu mag yi nga xamante ni fii barab bi ci moom la sosoo nañu leen brancheel ba ñu naan ñun ñu soog a naan waaw courant bi tamit bi mu ñëwee daf ni bi nga xamante ni ñëw nañu ba war làmp yi dafa defe ne booba jamono boobu Famara Ibrahima Sagna moo doon ministre moo amee woon ministère énergie waaye keroog bi mu ñëwee wax ko góor gi góor gi daf ko ni ndax jagsaaw brancheel nañ leen mu ne ko ah sëriñ bi loolu bokkul woon ci projet bi mu ne ko kon bu làmp yi tàkk loolu daal mënuma ko ñuy dëkkandoo di samay nawle fii sababoo ci seen maam may taal làmp ñoom taaluñu daal manuma ko mën Abdoul Aziz Famara daw delluwaat semaine après mu ci ñëw ne ko incha allahu taala accordé nañ ko dinañ leen ko defal yemul foofu mais ba ci dëkk yi wër fii yëpp ba bi góor gi di génn àdduna am na ñoo xamante ni daf leen ni woon dina leen brancher ci forage bi te daawul jël seen dërëm moo daan jël ci ñaqu boppam woo ay techniciens ñu natt seet ba xam ni mën na nekk mu ne nañ leen defal branchement loolu tamit ba léegi jóguñu ci parce que ndox dafa nekk dafa nekk lu am valeur mais dafa nekk loo xamante ni tamit kenn mënu ko ñàkk kenn mënu ñëw tamit aaki ah, moo ko ne man maa ko moom ndax yàq yëpp ko bokk fa tabaarakallaahu yàlla def na tamit tool bi dañ fi bay chaque année dinañ fi bay dugub dinañ fi bay gerte mais lépp luñ fi bay buñ ko récolté ca jamono Cheikh Al ba ci doomam yi ko fi wutu ba suñu bésu tey bi amul benn dërëm boo xamante ni bu dee gerte azaka mat ci génn ñu génne ko jaay li ci des dërë xaalis boobu ñu ci jot amul benn dërëm buy duggaat ci kër gi walla suñu poos lépp dañuy bindaat liste tàmbalee ko ci dëkk bi ci mag ñi néew doole yi séddale leen ko bu dee dugub luñ fi récolté ba génne asaka ji dañuy seet ña nga xamante ni yëpp buñ ko séddalee dinañ ci mën a mos ku nekk la nga mën a am ñu séddale leen ko xëy na nag léeg ñu séddale ba yàgg benn cinquante kilo des wala benn vingt kilo wala dara mais amul dara loo xam ne dañ koy jël di ko dugal ci kër kilifa yi ndax noonu la ko Baye Abdoul Aziz Dabakh gisee woon même bu dul tool bi sax yeneen tool yi nga xamante ni aju na ci moom tamit noonu lañ koy doxale noonu lañ koy dunde ba suñu bésu tey yàlla dogal nag gàmmu gi di gàmmu fas Diacksao Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz radiyallahu anhu daf ci masoon am yéene fu mu toll di ko wax ne daal maa ngi ñaan bés ñëw ñu tànt ci Diacksao ci mujj dundam daan na def léeg mu dem barkeelu ci ci burdu bi Tiwaawan mais fii sax dañ fi daan burdu guddi gàmmu léeg fa tabarakallahu mu yebal njaboot gi kilifa yi ñoom sëñ Babacar Mansour ñoom Cheikh Al Hadji Malick ñu dem ci seeni mag waaye moom lu ci bari fii la daan des gannaaw nag bi nga xamante ni génn na àdduna ci la kilifa yi reconduiraat loolu ñu jël ko teg ko ci suñu loxo ñu bokk ko ak njaboot gi di ko taxawu muy gàmm goo xamante ni dañ ko jagleel rasulullah sallallahu alayhi wasallam mais muy gàmm goo xamante ni retrouvaille lay doon ci famille bi ci mbokk yi ci dëkkandoo yi ci njege ñaale yi muy gàmm goo xamante ni tamit chaque at dañuy wut benn thème boo xamante ni dëppoon na ak jamono ñu traité ko waxtaan ci ak jaami yàlla yi fa tabaarakallaahu muy gàmm goo xamante ni tamit ci wàllu social wàllu solidarité lépp loo xamante ni rot si na fi ci ndimbal wallahi amul dara loo xamante ni dañ koy jël def ko suñu poos bu ñu gàmmoo bala lan demee lu fi jaami yàlla yi indi ci ay teraanga ay ndimbal kii sama seede la Cheikh di doomu Serigne Maodo ak Mouhamadul mustafaa si di doomu Serigne Babacar Mansour ak Soxna Aida lu ñu teg suñu loxo dañ leen koy bàyyee dañuy sonn lool nag waaye bu ñu gàmmoo ba ca suba sa dama leen di woo ñu toog ma woo Abdoul Aziz Thiax mi fi nekk ak ñi ko doon jàppale ci liggéey bi di ko surveiller ma ni leen am na ay chantier wala am na lu ñu fi doon liggéeyaat. di ko di defaraat ñu ne waaw am na toll nañu moment boo xamante ni moyen amul mais am na ay dëkkandoo yu amee ay magasin nangu ñoo jox seen matériel luñ ñu jox ñu bind ko noté suñu gàmmoo ba pare nag noonu la ñuy def woowoon ñu ñëw ku facture yi ñu amee yëpp ñu génne ko diw ñu luñ ko amee ñu ne nangam ñu ne nañ xool ndax li fi nekk montant bi fi nekk mën na ko yàlla ci mbaaxam def ñu fay ko di ko fay ba factures yi yëpp jeex ñu seet benn benn gan yi fi des benn benn jaami yàlla benn ja benn benn miskin taal ndongo yu mel ne man yi fi des nga xamante ni seen loxo jotul seen gannaaw muy denrée ceeb muy dugub muy sucre ba ci koppar yi noonu lañ koy def ni ko Baye Abdoul Aziz Dabakh daan defee léeg-léeg sax ñun dinañu lebi ñëw yokk ci. parce que man nga joxe ba mu jeex am ñu des dañuy defe ne dafa am loo beggadi <laughs> te fekk na loolu amul waaw waaye yàlla ñu ci defal sutura ba ñu ko tegee suñu loxo alhamdulilahi rabbil alamin gisuñu si benn benn dellu gannaaw mais avancement lañ ci gis waaw avancement lañ ci gis yàlla dogal na tamit ci wàllu organisation bi état bi daf ñu ciy jàppale préfet suñu préfet bi nekk Tivaouane a chaque fois bu jublu see dina jàpp date woo boo convoqué mbooleem chef de service yi ñu def CDD bi à saw nde ci préfecture lañ ko waroon defee waaye ci seen baax ñoom fii lañ koy defee chaque année tënk fi liñ fii tënk préfet def rapport yoon yónnee gouverneur gouverneur xool jàpp dat moom itam woote ñu jël li ñu tënkoon. ak yan ca war a complété yépp dem jébbal ko gouverneur ñoom itam ñu xool chef de service yi ñu convoqué te seen liggéey màcc jëm ci wàllu yooyu ku nekk jël engagement yi weesu tamit yépp engagement yi ñu mës a jël ñëw nañu jàppale ñu taxawuñu ci loolu ba ci bu ren bi nag am na engagement yi nga xamante ni service jëloon nañ ko wax dëgg yàlla AGEROUTE tàmbali na liggéeyam à Paris le cinq la ñu waxoon mais ñoom ñëw nañu bu yàgg ñu ngi ci ñu ngi dégloo ni tamit yeneen mbokk yi nga xamante ni yeneen service yi nga xamante ni jëloon nañu ay engagement ñu ngi